ci biir nag fi mu toll nii feebaram dama koy wax fu ma toll feebaram courant la muy dëkk yi fi nekk mënuñu am courant dëkk yi fi nekk seen forage panne wala xorom si bari ci wala sax amaguñu forage muy jigéen ñi nga xam ne dañ leen war a gunge pour que liggéey gu metti bi tegu seen dodd bi mën leen a wàcc muy wol bi di béy bi di sonn bi te ñu war leen a accompagner accompagner leen PUDC ak leneen te gëm naa ne loolu fa ñu jëm dinañ ci taxaw bu baax a baax a baax baax muy jeunesse bi nga xam ne ñu ngi nii toog di xaar continuer di yaakaar amaguñu liggéey te ñu war a am liggéey loolu mooy jafe-jafe Ngayokhème loolu duma sonn di ko wax te loolu jàpp naa ne. état bi ak conseil bi conscient nañ ci ba lii nga xam ne mooy programme buy dem ci population bi dinañ ci kóoraale sóoraale bu baax a baax Ngayoxeem